في الأكوان مصطفى الرحمن أنت في الأكوان مصطفى الرحمن Le message du Coran هاديا لله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 jucilat lii al ardu wa tahuura wa ala wa sahbi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin assalaamu aleykum wa rahmatullah très chers amis auditeurs de mémoire de croyants on n'a encore jamais vu la fermeture simultanée de tous les lieux de culte de toutes les confessions religieuses dans le monde mais aujourd'hui c'est arrivé juste pour fuir un danger invisible, imprévisible, Corona. Le monde s'est cloîtré et s'est enfermé dans les maisons mbokk yi gannaaw bu ñu santee yàlla subhaanahu wa taala mi nu nu daje ci bis bu tedd bi ànd ak sunu mbokk Muammar Khadafi Diakhaté nuy feeñal njàqare ni tey lañuy door a gis ñu tëjandoo bërëbu jaamukaayu yàlla yépp ci bépp kuy woote woo diine ngir daw njàqare njàqare boobu nga xam ne kenn xamul fu muy fële kenn du ko gis mooy corona tëj na nit ñi ci biir kër yi dagg diggante réew ak réew devant cette déroute générale nous sommes interpellés par cet avertissement de la meilleure des créatures, le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, qui dit La perversion ne se fera pas ouvertement dans un peuple, sans que des épidémies et des maladies inconnues de leurs ancêtres ne s'abattent sur eux mbokk bu ñu gisee lii xew tey ci àdduna bi xel du mën a bañ a daj artu bi yonent bi alayhi salaam waxoon na ni ñaawteef du fés ci penc ba ñëpp nangu ko illaa fasha fihimu taaun wal awjaau allati lam takun madat fi aslafihim allazina madaw mu ne bu ñaawteef yooyu fesee te kenn du ko tere ñëpp nangu ko mu ne ay mbas ak i feebar yoo xam ni seeni maam ma suñu ko xam mooy wàcc ci seen kaw Aujourd'hui, amis auditeurs, nous sommes interpellés par la sourate La Lune qui nous dit que leurs assemblées seront dispersées et le jugement est leur rendez-vous. Et l'heure sera plus terrifiante et plus amère encore. mbokk yi mu ngi mel ni la ji faw ñu bàyyi ko xel sa yuhzamul jam'u way wàllu na dubur yàlla mu ne danañu tas seeni mbooloo ñoom ñëpp ñuy daw di làqatu ji bali saatu mawiduhum waaye nag bis penc mooy bis bi leen jox ndaje pour lijjanti mbir yi wa saatu adha wa amar te bis penc boobu mooy gën a metti mooy gën a wex fuuf ci ñoom suratul qamar même Makka ami auditeur a pris la redoutable décision de suspendre temporairement le tawaf de la Kaaba et on nous prépare à l'éventualité de sursoir au Hajj de 1441 Hijriya 2020 après Jésus-Christ jusqu'au départ de Corona mbokk yi booy xool makk ci boppam tëj na tawaaf ci kaaba gi te booy seetlu xibaar yi ni muy dawee dafa mel ni ñu ngi togg nit ñi di leen waajal ci ni mën naam kenn du aji ren ci Màkk les musulmans du monde entier ont alors pris la redoutable décision de sursoir à la prière collective dans les mosquées jusqu'au départ de Corona. C'est une décision difficile pour ceux qui proposent de prier chez soi jusqu'au départ de Corona mbokk yi jullitu àdduna bi bépp tëj nañu seeni jàkk ni bu kenn dajalooti ci jàkka yi nañuy julli ci kër yi ba corona génn mbedd yi euh, dogal bu jafe la ci ñi koy jël en tant que jullit ci ni toogal sa kër bul demati ci jàkka ji mais dans un pays dominé par l'ignorance et le parparloo le parti pris un pays où on refuse systématiquement les allègements comme le réaménagement de la prière du voyageur, un pays où les gens rechignent à recourir au tayammum quand l'islam le leur permet, une décision aussi grave que soir à la prière collective dans les mosquées jusqu'au départ de Corona doit forcément être motivée. Sinon, elle sera contestée par les ignorants et les inconscients. mbokk yi boo nekkee nag ci réew la not mooy ñàkk xam ak parparloo kenn ku nekk di parparloo am nga sa parti am nga sa mbooloo réew moo xam ne mi même yi nga xam ne l'islam maye na la mu ne booy tukki wayafalal nañ la ci nii ak nii réew moo xam ni tiim ci boppam nee nañu la bu nekkee ndox amul wala loru ma ngi am tiimal décision bu rëy bu toll nii bu leen demati ci jàkk yi di mbooloo di julli ba corona dem boo ko fa waxee te joxe woo dalil da ngay am jafe-jafe ndax faw ñi xamul diingat la ñi nga xam ne amuñu sax yëg-yëg dañu lay diingat et la seule justification la seule motivation que des croyants ignorants ne pourront pas contester est celle qui vient du Coran et de la Sunna de la meilleure des créatures le prophète Mohammed paix et salut sur lui Dans le reste du monde, les croyants ont accepté de ne plus se regrouper dans les mosquées pour les cinq prières mbokk yi boo nekkee ci réew mu mel nii ngay jël dogal bu mel nii dangay ngay joxe tegtal te tegtal bi bu mu la jógeel fenn fu dul ci alquran nag ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa ali ndax de surtout àdduna bi yëpp ñoom nangu dañu ko te gisoo coow jib Mais au Sénégal, avec l'Église, il n'y a pas de problème. Mais certains musulmans refusent de se plier à cette mesure d'exception. À mon avis, leur refus est dû à certaines erreurs. La première erreur, c'est de ne pas généraliser la décision à l'ensemble des mosquées du Sénégal. La deuxième erreur, c'est de ne pas indiquer les textes islamiques sur lesquels on s'est fondé pour prendre une telle décision. mbokk yi bu dee réew mu mel ni Sénégal nga dem ci église bi amul jafe-jafe ñoom pour ñu wax bu kenn julli seeti ci mbooloo mi waaye boo demee ci jullit ñi lenn nat ci ñoom lànk nañu ni duñu topp bii doxalin lànk googu mën nay am ay njuumte yu mel ni li ñu ko jëlul mu war a wër territoire bi yépp ñu ni fépp fu nit mën a nekk ci réew mi na topp ci lii xëy na loolu bokk na ci li tax beneen bi itam ñàkk joxe ay tegtal ci diine mën na am ñenn ñi ñu ni ah nun duñu nangu li ces deux précautions à mon avis auraient permis aux musulmans non avertis de savoir qu'à l'heure actuelle ne plus se regrouper est une exigence religieuse et il n'y a pas d'exception pour la mosquée C'est pourquoi je vous propose quelques textes qui pourraient justifier de faire les cinq prières à la maison au lieu de la mosquée pour nous protéger de corona mbokk ñaari matukaay yooyu rek bu fekkoon jëloon nañu ko ci yaatal dogal bi ci ñëpp ci wax fan la tegu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 justifier la prière à la maison au lieu de la mosquée, nous pouvons considérer l'avis de monuments, de l'islam que sont Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Ibn Majah, Imam Ahmad, Imam Malik, Nafi' Ibn Omar, Abdullah Ibn Abbas et beaucoup d'autres savants qui disent que la pluie averse et la sont une excuse pour ne pas prier en group le vendredi et même le reste des cinq prières collectives mbokk yi pour euh, layal boobu doxalin boobu tëralin mën nañu jàpp taxawaayu ay ponkal yu mel ni Bukhari Muslim Abu Dawud Ibnu Maja Ahmad Imam Malik naafi ibnu umar ibnu abbas ak saru aksaru ahlil ilm li ëpp ci borom xam yi ñu ne almatar wa tiin uzrun yu baax maahu altaxalluf an xuduri aljumua waljamaat laylan wa nahaara ñu ne nag taw bu bare taw ak mbedd yi dem na ba boo génnee da ngay luf ci ban bi ñu ne loolu loolu la ci ñu gàntal teew ci julli juma ak sax nag julli yëpp julli juróom yu guddi yeeg yu bëccëg yi Sufyan as-Sawri dit qu'il n'est pas permis il n'est permis à personne de ne pas accomplir la prière du vendredi en groupe dans une ville ou un village qui a le nombre requis sauf sauf à cause d'une maladie contagieuse ou d'une peur panique certifiée mbokk yi nga dem ci ku mel ni saw Sufyaanu Sawri nitu yàlla bu mag boobu mu ne laa yurxas li ahadin fi tarkil jumaa iza kaana fi misra yujma fii mu ne du may amul kenn koo xam ne war na mën a am ngànt mu nekk ci dëkk boo xam ni mbooloo mu mat jumaa bokk na fi te mooy ñetti nit ci li gën a néew lu dul dafa war a julli jumaa illa li maradin mudin aw xawfin muqtix wala mu ni lu dul feebar boo xam ne day wàlle wala boog njàqare ak tiit goo xam ne law na ci dëkk bi imam ibnu hajar al asqalani dans Fathul Bari qui est un commentaire de Bukhari il nous dit que Bukhari rapporte qu'Abdallah ibn Haris a dit Abdallah ibn Abbas nous exhorta un jour de grandes pluies. Et quand le muezzin arriva à la formule Hayya ala salah, venez à la prière, il lui ordonna de dire, dis-leur, priez dans vos maisons, sallu fi rihal. Tout le monde se regarda avec étonnement. Il leur dit, on dirait que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Pourtant, quelqu'un de meilleur que moi la meilleure des créatures le prophète Muhammad paix et salut sur lui l'a fait mbokk yi imam ibnu hajar al asqalaani wax na ci fathul baari mooy téere bu mag boobu mu saraawe buxaari mu ni abdullah ibn al xaaris bis abdullah ibn abbas dafa nu ñaax ci benn bis boo xam ni bi bis bu bare taw la ba noddkat bi di nod di nodd ba yegsi ci hayya ala salaa ñëw leen julli mu ne que waxal assalaatu fi rihaal julli leen ci seeni kër julli gi tey ci kër yi lañu koy def fa nadara al qawm baaduhum ila baad nit ñi xoolante xoolante ñàqare ak wax ni ah Abdullahi li mu indi nii est-ce que du bidaa mu xool leen ni ankartum haada dafa mel ni yéen yéen àndu leen ci li mu wax mu ne leen nag lii ma wax ni waxuma ko ci sama coobarey bopp ci yonent bi alayhi salatu wasalaam laa ko jëlee inna haada faalahu man huwa xayru minni lii ma wax nii def ko ku ma gën fuuf te ma yonent bi alayhi salaam lii la defoon lii la santaane si les contemporains d'Abdallah ibn Abbas les musulmans de la meilleure génération furent étonnés de devoir prier chez eux le vendredi. Comment ne pas s'attendre à une réaction plus radicale chez nous qui sommes très loin, de la sunna de la meilleure des créatures, chez nous qui sommes dominés par l'ignorance et par le fanatisme mbokk yi su fekkee jamono Abdullah ibnu Abbas ca xayrul xuruuni ci maas yi gën ci jullit ñooñu ñoo jaaxle woon bi biñ ne leen julli leen ci seen kër bi su àjjuma mais bon nan ngay def yow ba maas gi yées nga xam ni ci la ñu toll tey maas gi nga xam ne xam-xam réer na nan lañu dul jaaxle boo neenu jullil ci sa kër jullil bul dem julli ji ci jàkk ji amis auditeurs nos ancêtres on soulevé les question que nu nous posons aujourd'hui et ils ont trouvé des réponses dans le Coran et la Sunna de la meilleure des créatures. C'est pourquoi Bukhari composa même un chapitre qui est Babu, est-ce que l'imam fait le khutba et dirige la prière un jour de vendredi pluvieux, un jour pluvieux où il y a seulement la pluie mbokk yi ñi nu jiitu sunuy mag njàqare gi ñu tollu tollu woon nañ ci laaj yi nuy laaj sunu bopp laajoon nañ ko seen bopp tontu ci ci alquran ak sunna moo tax boo demee ci eh, eh, téere Buxaari ba da fay fekk benn bunt boo xam ni baabun hal yusalli l imam bi man xadar bi bi man xadara wa hal yuxtab yowmul jumuati fil matar ma nga tudde bunt ba est-ce imam dana war a jiite bis àjjuma est-ce que dana xutba bisu ajuma ci ajuma boo xam ne bis boobu dafay taw taw bu bare et puisque ce pays adhère au rite malikite rappelons qu'Abdallah ibn Yusuf rapporte de imam Malik ibn Anas qui rapporte de Nafia que une nuit où il faisait extrêmement froid avec un violent Abdallah ibn Omar radiallahu taala anhu appela à la prière et priez chez vous. Puis il ajouta, les nuits de forte pluie et de grand froid, le messager d'Allah, la meilleure des créatures, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ordonnait au muezzin, c'est Bilal, de dire, priez chez vous, sallu fi buyutikum mbokk yi wax na moom Abdullah ibn Yusuf mu ni imam Malik jële na ci Naafi' mu jële ci Abdullah ibnu Umar ñu nodd ci julli ci guddi goo xam ne gii dafa sedd sedd bu tar gëriif ba ñu mu ne ala sallu fi rihaal julli leen ci seeni kër dal di ciy teg nag ni inna rasulallahi sallallahu alayhi wa ali kaana yaamuru almuazzin ida kaanat laylata bardin wa matar yaqul ala sallu fi rihaal mu ni julli leen ci seen kër dal ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam noona la daan digale nodd katam bu tedd ba ci guddi yi nga xam ni guddi yu sedd la guddi yi nga xam ni guddi taw la bu noddee mu ne alaa dama ni sallu fi rihaal julli leen ci kër yi nu ñaan yàlla subhaanahu wa mu wërsëgal nu boole ñu ci way dégg yi mën a topp loola yomb na borom bi yal na nu ko defal Pour justifier la prière à la maison au lieu de la mosquée on peut évoquer le fait que subhanahu ta'ala a fait de la terre un moyen de purification et un lieu de prosternation, donc une mosquée pour le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui nous l'a dit et qui ajouta, où que vous soyez, vous pouvez accomplir la prière. Ainsi, amis auditeurs, tout lieu qui est propre et pur à valeur de mosquée pour le musulman quand ce dernier ne peut pas accéder à une mosquée pour une raison valable naturellement mbokk yi ngir euh, dogal ñu julli ci suñuy kër bañ julli ci jàkka ji mu am fu ñu ko wéer mën nañu ko wéer ci li yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ni ju'ilat liyal ardu tayyibatan tahuran wa masjida mu ne defal nañu ma jàkke ji euh, suuf si yëpp muy tiib bu laab wa masjidan ñu defal ma ko muy jàkk bon mën naa ci jàppe laablu ci tiim ci julli ci mu teg ci nag ni fa ayuma rajulin atraka salaat salla haysu kaan mu ni bépp waay fu julli fekk na julli bu boobaa da nga ciy dégg ni bon bépp bërëb li fekk set na laab na dafay taxaw taxawaayu jàkk ci jullit bi bu fekkee jullit boobu nag mënul jote ci jàkk te la tax mënul jote ci jàkk ngant la loo xam ne lislaam moo ko ka may amis auditeurs pour justifier la prière à la maison au lieu de la mosquée on peut s'appuyer sur le verset 78 sourate Yunus Jonas où Allah subhanahu wa dit nous dîmes à Moïse et à son frère faites de vos maisons un lieu de culte et soyez assidus à la prière et annonce la bonne nouvelle aux croyants mbokk yi ba pour layil nañu julli ci kër yi walis jàkka mën nañu sukkandiku ci lay juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar suratu yunus borom bi subhaanahu wa taala wax fa ak yonti yàlla muusa ak magam ja haaruun mu ne wajcalu buyuutakum xibla def leen seeni kër xibla jullikaay yi wa aqimu salaat waaye lu mën a am na ngeen saxal julli wa bashiril muminin bégalal ma képp ku gëm À propos de ce verset, les savants ont deux compréhensions. La première, c'est que pour éviter la persécution féroce de Pharaon, Allah conseilla aux Juifs de prier dans leur maison au lieu de des synagogues mbokk yi ñaari dégg la boroom xam-xam yi am ci laaya ji bu njëkk bi mooy ngir yàlla aar leen ci fitna bi leen Firawna doon teg bi bundu xatal bi mu ni leen julli leen ci seeni kër bàyyi fa église la deuxième compréhension c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala conseilla aux juifs de construire leur maison de sorte que elles se font face pour faciliter leur exode d'Égypte lorsque l'heure arrivera mais quel que soit le sens du verset Allah subhanahu wa na ne décharge personne de la prière. Il dit accomplissez la prière, aqimu salat wa bashiril mu'minin et annonce la bonne nouvelle aux croyants. mbokk yi ñaareel bi mooy boroom xam-xam yi nee nañu yàlla subhanahu wa dafa sant jullit ñi ñu eh, yahud yi ñu tabax seeni kër bunti jàkkaarloo ñu dékkërle ngir bis boo xamee ni génn Égypte jot na ngir gàddaay yi loola da yomb ci ñoom ñu mën a rocceeku te kenn du leen gis waaye gis nga ak dégg-dégg bu mën a am ci laay ji yàlla du wàcce kenn julli julli leen aqimu salaat la wax lu mën a am da ngeen di julli wa bashiril muminin lu mën a am da ngeen war a wéy nekk way gëm nga bégalal ma ñu gëm ñooñ ami auditeur pour justifier la prière à la maison au lieu de la mosquée. On peut se référer à la prière en période d'insécurité. En période d'insécurité, il est permis de regrouper les prières, de diminuer le nombre de rakats de certaines d'entre elles. De même, on adapte la forme extérieure de la prière à ce que la situation nous permet. mbokk yi ngir euh, jullil sa kër bañ julli ci jàkk ji mën nga dellu ci julli xaw mooy julli jamono boo xamee ni bii kaaraangi amul tiitaange lay nit ñi di dund xam nga jamono tiitaange ak jamono tukkeeg yu ni mel yàlla subhaanahu wa may na jullit bi mu boole ay julli wàññi ay julli xool waxtu wan la ko mën a def defe ka ca na mu ko mën a defe ci li nga xam ni lool la ko situation bi may Le verset 102 sourate, la femme dit, Quand tu diriges la prière en groupe, en période d'insécurité, qu'une partie prie avec toi en gardant leurs armes sous la surveillance de l'autre groupe. Quand ils ont terminé leur raka, qu'ils surveillent vos arrières afin que l'autre partie accomplisse sa prière avec toi. Prenez de toute façon vos précautions et vos armes. Les mécréants aimerait que vous déposiez vos armes afin de vous donner l'assaut final. Vous ne commettrez aucun péché si vous déposez vos armes à cause d'intempéries ou de maladies. Cependant, soyez toujours sur vos gardes. Allah a préparé un châtiment humiliant pour les mécréants. Quand vous avez fini d'accomplir la prière, faites le zikr d'Allah debout, assis, couché, dans toutes les positions et dans toutes les condition possibles mbokk yi nga dem sooratu nisa borom bi subhaanahu wa taala di organiser julli jamono tiitaange jamono xare soldaar yaa ngi jàkkarloo mu ne wa in kunta fihim fa aqamta lahum salaat soo leen dee jiite ci jamono bu mel nii faltaqum taifatun minhum maak da ngay séddale mbooloo mi ñaari mbooloo benn groupe bi julleeg yow wal yaaxuzu aslihatahum nañu jël nag seeni ngànnaay bu kenn teg sa fetal bu kenn teg sa bazuka fa iza sajadu falyakunu min waraikum boo xamee ni ñoom julli nañu seen rakka nañu dem ci seen gannaaw wal taati taifatun lam yusallu fal yusallu maak beneen groupe bi julliwul woon ñëw julli ñii aar leen ñee it bu ñuy julli si wal yaaxuzu xizrahum wa aslihatahum bu ñu wéer mukk seeni ngànnaay nañu ko téye nañu fagarlu bàyyi xel noon bi ndax wadda allazina kafaru law taxfalu law taxfaluun an aslihatikum wa amtiatikum ndax yi yéefar yi bëgguñu ludul ngeen sàggane seen ngànnaay ak seeni bagaas rekk fa yamiluuna aleykum maylatan waahida ñu dal ci seen kaw genn cong rekk faagagal leen wala junaha aleykum in kaana bikum azan min matar aw kuntum marda mu ne du ngeen am benn bàkkaar nag su fekkee yéen a ngi ci taw bu metti wala ngeen feebar am tadahu aslihatakum ngeen wéer seeni ngànnaay wa xuzu xizrakum waaye lu manti doon fagarlu leen inna allaha aadda lil kaafirina azaban muhina yàlla waajal na mbugal gu rëy ci yéeféri bu ngeen paree julli nag tekkiwul ni pare ngeen ci ak yàlla fazkurullaha qiyaaman na ngeen di tudd yàlla fekk yéen a ngi taxaw yéen a ngi toog wala yéen a ngi tëdd ca na ngeen mënee julli rek ci noonu ngeen di jullee sax ci tudd sa borom mais amis auditeurs quand la situation reviendra à la normal kan la peur l'insécurité aura disparu quand corona sera parti le verset di dit que vous serez en sécurité accomplissez normalement la prière car la prière est une prescription à temps défini mbokk yi boo xamee ne nag euh, dem nañu ba jamono njàqare jamono tiitaange jamono guerre bi jamono corona dem na yàlla mu ne ngeen delluwaat ci julli na ngeen ko doon defee jullee ji ci mbooloo yi fa iza fa izat manantum fa aqimu salaa mu ne bu ngeen amee sécurité rek dellu leen ci julli normal inna salata kanat ala muminina kitaba mawquta julli dafa am waxtu ngeen di ko julli ci waxtu ya di ko julli ci mboolo yi ci melokaan bi nga xam ni mooy rukkoo sujjoot taxaw amis auditeurs pour justifier la prière à la maison au lieu de la mosquée on peut considérer la dispense de jeûner en cas de maladie ou par crainte de tomber malade et la dispense pour la femme enceinte qui craint pour sa santé ou pour son fœtus. Et la dispense à cause d'allaitement. Toute cette réglementation, vous la retrouvez dans les versets 183 à 185 sourate la vache mbokk yi ngir wax nit ki jullil sa kër bul julli ci jàkk ji man nga ni que loolu mën na nekk ndax xam nga woor farata la ni julli nekk farata waaye ku feebar walla ku ragal ni boo ko defee da ngay feebar ñu wàccee la ka ba nga wér noona jigéen bi nga xam ne mu ngi ëmb ragal pour wér gi yaramam walla mu ragal ngir doom ji mu ëmb kooko dañu koy wax bul woor kii nàmpal ragal ci yaramam walla ragal ci ki muy nàmpal dañu koy wax bulwoor bu fekkee boo nàmpalee doo am soow kese ñu ne la bul woor tëralin yooyu yëpp boo delloo suratu albaqara di nga ko fekk foofu ci laaye témér juróom-ñett fukk ak ñett de la même manière pour justifier la prière à la maison au lieu de la mosquée on peut considérer les mêmes exigences de sécurité et de santé qui sont une condition pour le pèlerinage Dieu subhanahu wa ta'ala dans la sourate Ali Imran, le premier sanctuaire édifié pour l'humanité et bien celui de Bakka, de Makka, qui la bonn direction pour l'univers mbokk yi ngir nga ni nit ki jullil sa kër bul julli ci jàkka ji man nga ni ko seetal aj aj dafa am ay sart sart yooyu bokk na ci nga am kaaraange amoo dara looy tiit nga am wér moo tax boroom bi mu ni inna awwala baytin wudia linnaas lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin kër gi ñu njëkk samp ngir nit ñi di ci jaamu seen borom kër gi njëkk am ci kaw suuf mooy kaaba ki ci mag barkeel na mooy itam tegtal nit yi yoon di leen gindi jëme leen ci seen borom suratu Ali Imran et le verset poursuit vous y trouverez des signes évidents comme la station d'Abraham. Faites de sorte que celui qui entre dans le périmètre soit en sécurité. C'est un devoir envers Allah pour ceux qui en ont les moyens d'accomplir le pèlerinage au sanctuaire. Verset 97 sourate Ali Imran mbokk yi borom bi di la wax ba tey sécurité ni mu rëyee mu fii fiihi ayatum bayyinaat kër googu boo fa demee daa fa fekk ay tegtal yu lay wan ni lii la yàlla wax lool rek mooy li bokk na ci aaya yooyu maqaamu ibrahim fa bàyyi ibrahima tegoon tànkam di tabax kaaba ga tànk baa nga fa ba tey wa man daxalahu kaana aminan na ngeen góorgóorlu nag ba fexe ba kuy dugg ci kër googu na am sécurité walillahi ala nnaasi xijjul bayti man istataa ilayhi sabila ndax yàlla faratal na ci nit ñi ku ko man rek am nga sécurité nga dem nga aji am nga weer nga dem nga aji am nga yóbbal nga dem nga aji wa man kafar fa inna allaha ghani anil alamin koo xam nag yii yëpp matal na ci yow nga bañ a ah, weddi nga ma yàlla soxloolul ci yow dara amis auditeurs pour justifier la prière à la maison au lieu de la mosquée on peut considérer le recours au tayammum au lieu de l'ablution et du bain rituel comme disent les versets 43 sourate la femme et le verset 6 sourate la table mbokk yi ba tey xoolal lan mooy tiim tiim day wuutu jàpp di wuutu cangaay jamono boo xamee ni bii tiit nañu ci jëfandikoo ndox wala ndox amul nu ñaan yàlla subhanahu wa mu wërsëgal nu boole ñu ci way dégg yi mën a topp loola yomb na borom bi yal nanu ko defal شأنك Enfin, une décision aussi grave doit être conforme avec l'objectif principal de la religion, qui est de préserver l'intérêt général et le salut public. Allah subhanahu nous dit, Allah ne veut pas vous imposer la gêne. Au contraire, il veut vous purifier et vous combler de faveurs afin que vous soyez reconnaissants verset 6 sourate la table et au verset sourate la vache il dit Allah veut pour vous la facilité il ne veut nullement pour vous les difficultés mbokk yi dogal bu rëye nii ni jullil sa kër bul julli ci jàkk ji war na dëppoo ak maqasidu diin sharia li tax diine jóg te li tax diine jóg moom mooy aar askan wi fexe ba askan wi mucc fexe ba nga xam ne li nga xam ni mooy njariñu lépp ñépp mën ci jote wax na moom borom bi subhaanahu wa taala mu ne maa yuridu llahu li yajala aleykum min haraj yàlla bëggu leen teg benn jafe-jafe benn xat-xat walakin yuridu li yutahirakum li mu bëgg kay mooy laabal leen wala yutimma nicmatahu alaykum matal nag ay xéewalam ci yéen laallakum tashkuruun ngir ngeen koy sant di ko gërëm laay juróom benn suratul maida mu teg ca laaya ja ca suratul baqara ni yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra yàlla dafa bëgg lépp jàppandal ci yéen bëggul dara nekk lu jafe ci yéen laaye téeméer juróom-ñett ak juróom suratul baqara comme nous l'avons vu il est permis de prier temporairement chez soi et non à la mosquée dans une situation comme celle que le monde traverse actuellement mais pour autant il ne devrait pas être envisageable de ne pas appeler à la prière il faudrait à l'heure de chaque prière que le muezzin fasse l'appel à la prière, même si les musulmans prient chez eux, car il le leur dit, chez vous. mbokk yi bon lu wér la ci lislaam ni nit ñi mën nañuy julli seen kër ci yenn jamono walis jàkka yi bu ñu tolloo comme situation bi àdduna bi toll tey waaye loola warul woon nekk sabab ci ñu bàyyi nodd waroon nañu góorgóorlu ba waxtu julli bu jot bu nekk jàkka ju nekk kafa daan nodd nodd bu yeggee ci lii yonent bi alayhi salaam waxoon xayya ala salaa mu ni sallu fi rihaal julli leen ci seeni kër car c'est le regroupement ki propage corona et non la présence d'un seul individu dans l'enceinte de la mosquée Nous souhaiterions que, quelle que soit la formule de non-regroupement retenue, qu'on n'arrête pas l'appel à la prière. Car aujourd'hui, seul l'appel du muezzin reste l'indicateur pour Corona, pour que Corona comprenne qu'il est en terre croyante. mbokk lu mën a ak forme bu ñu mën a jël pour nit ñi bu ñu dajaloo war nañu góor góorlu ba nodd di ji ndax bu fekkee mbooloo mi mooy tasaare corona ci suñu biir benn nit kese ci jàkka ji du tax jàkka jooju am corona lu dul xëy na noddkat ba day am corona bon nag nañu góorlu ba waxtu wu julli wu jot wu nekk rek ñu woote waat julli ndax loolu sax dana tax corona bu déggee ñuy nodd moom mu xam ni fii ma nekk kat ay jaamu yàlla ñoo fi nekk naa def ndànk ci ñoom certains disent quand on rate une seule prière de vendredi à la mosquée donc si une mosquée ferme pour un vendredi il faudra une cérémonie de réouverture pour reprendre les prières de vendredi dans cette mosquée cet avis est inconnu en islam il n'y a même pas de cérémonial déterminé pour commencer les prières du vendredi dans une mosquée. À plus forte raison pour reprendre les prières de vendredi dans une mosquée. mbokk yi ñenn ñu ngi wax ni ah jàkk joo xam ne tëj nañu ko benn ajjuma kese bu ñu ko fa julliwul rek bu ñu fa bëggaatee julli ajjuma faw ñu defaat cérémonie def ay sarax rey ay nag déedéet loolu lislaam xamu ko ndax même pour ubbi jàkka ji sax ubbi jàkka rek amul cérémonie buñ ciy def gisuñu ko bokk ca ba yonentu alayhi salaam di ubbi am gisuñu ko ci saxaaba yi bi ñuy ubbi seeni jàkk ngir commencer fa julli wala commencer fa julli aju donc pour lever la suspension temporaire de la prière du vendredi à cause de corona, on n'est pas obligé de sacrifier du bétail pour la reprise de la prière du vendredi ou la reprise des cinq prières quotidiennes quand corona sera reparti. mbokk yi bon nañu jàpp ni pour delluwaat bu corona demee ñu delluwaat ci jàkka yi di julli du laaj ñu rey ay nag rey ay gëléem dajaloo feet déedéet. Cependant, il n'est pas interdit d'organiser des séances d'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, des séances de gratitude, de reconnaissance envers Allah, d'avoir mis fin à Corona et de nous avoir épargnés et d'accueillir dans sa miséricorde ceux qui seront partis avec Corona mbokk yi bu ñu demee ba nga xam ni Corona dem ñu ni léegi kat mën nañu ubbiwaat sunuy jàkk bale ka raxas ka dellu ci julli du laaj nag ñuy mbeex ak di rey ay naga ki gëléem ak déedéet dañuy dellu rek julli ci suñuy jàkk mën nañu nag ku mu neex nga xam ni yaa coobarewu nga ne ah ñun kat nañu nañu nañu ñaan nañu def ay julli nañu def ay zikr nañu def nangam sante ka borom bi subhanahu wa mi nga xam ne moom moo jeexal tey corona sant ka borom bi subhanahu wa taala ci ñëpp ñi nga xam ni musal na leen sante ka borom bi subhanahu wa taala kir ngir mu yërëm ñëpp ñi nga xam ni ñi yóbbu na leen ci corona ñu ñaan yàlla subhanahu wa yàlla musal nu ci corona yàlla boole ñu ci way dégg yi mën a topp loola yomb na borom bi yàlla na nu ko defal min yadi ta'zim zaraka taslim min yadi ta'zim yaxmilu takrim bi salatillah ya rasul allah je vous propose pour conclure notre séance d'aujourd'hui que chacun de nous fasse le bilan de ses prières hebdomadaires à la mosquée avant Corona. Car nous savons que chaque semaine, le musulman doit faire trente cinq prières obligatoires à la mosquée. Ma question est, lequel d'entre nous les faisait régulièrement trente cinq prières à la mosquée? Mbokk ngir yëkkati suñu jataay ñu natt xayma sunu bopp ci sunuy julli ci jàkk ji fekk nag booba corona ñëwagul ndax xam nañ ni ayu bis bu nekk jullit bi war na def fanweeru julli ak juróom ci jàkk ji léegi nag laaj bi mooy kan ci ñun balay corona di ñëw moo daan julli fanweeri junni julli ak juróom yépp ci jàkk ji nous tous qui critiquons la fermeture temporaire de la mosquée posons-nous les questions suivantes. En tant que khalife, est-ce que vous faisiez vos cinq prières à la mosquée par semaine avant Corona? En tant que prédicateur, faites-vous vos 35 prières à la mosquée par semaine avant Corona? En tant qu'homme politique, est-ce que vous faisiez vos cinq prières à la mosquée par semaine avant Corona? En tant qu'homme riche, Faisais-tu tes prières, tes cinq prières à la mosquée par semaine avant Corona? En tant que contestataire aujourd'hui de cette décision, toi qui contestes cette décision des imams de surseoir aux prières collectives à la mosquée, est-ce que tu faisais tes cinq prières à la mosquée par semaine? mbokk yi ñun ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi diingat euh, li nga xam ne moom la sunu yilimaan jël ci dogal nañu laaj laaj yi bu dee xalif nga ndax yow daan nga julli sa fanweeri julli ak juróom ci jàkka ji bala corona di ñëw est que daan nañ la ci gis ci jàkka ji bu dee yow waaraate ket nga yow yaay jàngale diine est-ce que yow sa fanweeri julli ak juróom ci jàkka ji nga koy daan jullee ayubis bu ne yow nitu politique nga nitu nguur nga ndax yow danga daan julli sa fanweeri julli ak juróom ci jàkka ji bala korona di ñëw ayu bis bu nekk yow boroom alal nga ndax yow daan nga dem ci jàkka ji fanweeri yoon ak juróom ci semaine bu nekk ngir say julli yow mii di diingat nag nga ne ilimaan yi li ñu def teguñu ko fen waruñu woon tëj jàkka yi waaye ñaata julli nga daan julli ci jàkka ji avant corona di ñëw ak avant nga taxaw fii di diingat di dogal bii ñu jël en tant que sëriñ guide religieux est-ce que tu faisais tes trente-cinq prières à la mosquée par semaine avant Corona en tant que maître coranique enseignant du Coran est-ce que tu allais trente-cinq fois par semaine à la mosquée pour prier et toi qui m'écoutes en ce moment combien de fois par semaine te rendais-tu à la mosquée pour prier avec les prières mbokk yi yow sëriñ nga kilifa diine nga ndax yow daan nga dem julli ji fanweeri yoon ak juróom semaine bu nekk ci jàkka ji yow yaay jàngalekatu daara ji sëriñu daara nga ndax yow fanweeri yoon yi ak juróom daan nga dem julli ci jàkka ji yow mii di ma déglu ànd ak ñun fii tey ci bis bu tedd bi ñaata yoon par semaine nga daan julli ji ci jàkk ji ànd ci mbooloo la majorité d'entre nous ne prie pas à la mosquée sinon une fois par semaine le vendredi les 34 prières restantes nous les faisons où nous voulons quand nous voulons et comme nous le pouvons mbokk yi mën nañu kitaabu ni li ëpp ci ñun duñu julli ji ci jàkk lu dul benn yoon par semaine mooy àjjuma fanweeri yoon ak ñeent yi des yëpp fu mu leen neex nu mu leen neex ak ci jamono ba mu leen neexee lañu koy jullee et si nous faisons le décompte annuel nu avons cinquante deux semaines dans l'année donc nu ne prions que cinquante deux prières plus tabaski écorité donc cinquante quatre fois à la mosquée pendant toute l'année mbokk yi bu ñu ko jëlee ci at mi juróom fukki semaine ak ñaar moo am ci at bu fekkee benn yoon ngay dem ci semaine bu ne bon juróom fukki julli ak ñaar rek nga julli ci jàkka ji ci at mi mépp boo ci yokkee tabaski ak korite muy juróom fukk ak ñeenti julli ngay dem ci jàkka ji dès lors quelqu'un qui pendant toute l'année na fekk que 54 prières à la mosquée n'a pas le droit de contester une mesure prise par ceux qui font vivre la mosquée et qui prient 1820 fois plus tabaski et mille cent vingt 1822 fois à la mosquée dans l'année mbokk yi bu ñu ko xoolee foofu koo xam ni yow juróom fukki yoon ak ñeent ngay julli ci jàkka ji ci at mi ci lépp yow waroo mën a taxaw di diingat ki nga xam ni moom day julli ji junni yoon ak juróom-ñetti téeméer ak ñaar fukk ci at mi nga dolli ci julli tabaski korité muy junni ak juróom-ñetti téeméer ak ñaar fukk ak ñaari yoon muy dem ci jàkka ji di ko dundal ceux qui prient une fois par semaine à la mosquée devraient méditer le verset 114 sourate la vache qui di qui est plus injuste que celui qui interdit de mentionner le nom d'Allah dans ses mosquées et qui agisse pour les détruire mbokk yi ñun ñëpp nga xam ni ñooy gàddaay jàkka yi war nañu xalaat laye ji wa man azlam mimman manaa masajid allah an yuzkara fiha ismu wa saa fi xarabiha yàlla mu ne ana kan moo gën a mën a tooñ ki nga xam ne mooy tere ñu juli ci jàkka yi di dox sax nag pour na tas jàkka yi nañu mab jàkka yi sachez que ne pas être assidu à la mosquée ne pas participer au programme de zikr ne pas assister aux séances de rappel et d'enseignement à la mosquée Ne prier à la mosquée qu'une fois par semaine le vendredi est une forme de destruction passive et peut-être même active de nos mosquées mbokk yi bon képp kenn ci ñun na xam ni bañ di teew ci jàkk ji programme mu zikri ya ñu fay def doo ca bokk bu ñuy fàttali yàlla doo ca bokk bu ñuy jàngale ci jàkk ji doo jàngi yow benn yoon ngay julli ci jàkk ji par bis ku taxaw taxawaay boobu yaa ngi ci màbb jàkk nga ak nga bañ ko yëg enfin réfléchis hier quand la mosquée était ouverte tu n'y allais pas aujourd'hui que la mosquée est fermée tu te bats pour y aller faisons tout pour ne pas oublier notre colère actuelle quand les mosquées rouvriront leurs portes qu'Allah nous donne longue vie jusqu'à la réouverture de nos mosquées pour voir ce qui va se passer et par la grâce de Dieu la réouverture des mosquées et pour très bientôt incha allah mbokk yi nañu xalaat te bañ fàtte tey démb jàkka yi ubbi woon na doo ci dem tey bi ñu tëjee jàkka yi ngay xeex pour dama ciy dem nañu góor góorlu ba suñu mer bi ñu ànd tey ak coow lii ñuy dégg tey bu ñu ko fàttee mukk bu jàkka yi ubbi waatee seeni bunt bu ñu fàttee mukk bu jàkka yi ubbi waatee seeni bunt nu ñaan yàlla subhaanahu wataala taala mu wërsëgal nu nu fekke ubbite jàkk yi te bu ci yàlla àndee yàggatul léegi jàkk yépp ubbi ñu nekkoon fii ci rajo Sénégal international àndoon ak sunuy mbokk Adja Soxna Maam Abi Jeey Mouhamad Chérif Diop nu ñaan yàlla subhaanahu wataala taala yal na yàlla doon suñu ndimbal mbokk yal na yàlla doon suñu ndimbal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 wa habibina muhammad tibbil qulubi wa dawaa'iha wa caafiyati alabdaani wa shifaa'iha wa nuuri alabsaari wa diyaa'iha wa cala aalihi wa saxbihi wa sallama tasliima ظلك الممدود بيره مقصود أنت يا محمود تسليم من يد التعظيم